yéen kaay gii di Walf Quotidien xëy fësale leneen tamit loo xam ne yéen kaay gi Walf Quotidien xëy na ko fësal te mooy yokk yokkute nga xam ñu ngi koy nemmeeku si njëgu dund bi euh, gannaaw soble bi fu mu toll ni daal mboolem produit yoo xam daal ñu ngi koy jëfandikoo ci bi bi lépp yokk nañ ko mu ngi ci yéen kaay gii di Walf Quotidien yéen kaay geneen euh, l'info yéen kaay dafa xëyee dellu si waat ci coow li nga xam ñu ngi koy nemmeeku jamono ji mu dox ci diggante euh, Barthélemy ak kii di Ousmane Sonko wala diggante ak taxaw Sénégal mm-hmm. démb nag ci am ndaje mu doon seq di daal kon daal wax na ne bés ni ki tey euh, ñoom waa taxawu Sénégal bokk duñ ci yeewi askan wi mu ngi ci yéen kaay gii di l'info yéen kaay gii di le quotidien ko duppe mortal combat dox ci diggante taxawu ak ex Pastef euh, nañ daal fu mu toll mbir yi ay conflit d'intérêt noonu la ko kaay gi xëy fisalee euh, Bart nag yëkkati na ay kàddoom daal di tontu ñuy wër di wax naa ab traître la nee nag bu fekkente ne ñu ngi wër traître mooy ñi nga xam ne keroog ba ñuy réhabilité candidat dëgg-dëgg ñooñu la noonu la ko yéen kaay gii di la quotidien xëye fësale yéen kaay bi di la mandat waaye yéen kaay di la mandat dafa xëye dellusiwaat ci Barthélémy Diaz mi nga xam ne démb Euh, ci ab ndaje mu doon seq taskatu xibaar yi indi na ay leeral jëmale ko euh, ci taxawaay ñoom waa taxawu Sénégal mm-hmm. nee su fekkente ne Ousmane Sonko ak ñoom ñoom dañoo préféré amal seen gatsa gatsa euh, moom la mu mooy lañ mooy wax mooy waxtaan mm-hmm. tey jàpp nañ ne ñoom waxtaan daal lu mu mënta maye dara du ko may noonu la ko yéenekaay gi xëy fësale bu dee nag yéenekaay gi di dafa xëy amal ab taxaw seetlu jëmale ci ki nga kii di Khalifa Sall mi ñu mi ñu réhabilité wax ne war mën a bokk ci élection présidentielle yi di ñëw waaye laaj bi samp mooy ndax moom àll boobule mm-hmm. euh, doole jamu amoon am na ko rawatina ci feefam boobu di Grand Yoff mu ngi ci yéen kaay la mandat eh, mu ngi desandi ci yeewi waaye euh, yeewi ak euh, noonu la ko yéen kaay la te jàpp ko fàttali les échos Sidna Omar Ba waaw bu dee yéen gi di la les échos ci loolu la xëy dellu siwaat euh, na ci biir yeewi am na si ñoo xam ne daanaka tekk wu ñu dara euh, ndax àndul ci décision bi nga xam ne jël nañ ko wax ne dañuy jëlee ko taxawu Sénégal ci biir euh, yeewi askan wi ndax mënoon nekk gan bu noo xam ne da nga yeewi béy noonu la ko yéen kaay gi xëy fësalee leneen tamit loo xam yéen kaay gi xëy na ko fësal te mooy maître El Mour Ndiaye mi ñu ne Euh, procureur jamono ji sàkku na daal ñu tekk ko loxo li nag mooy di loxoom dafa taq ci ak ñu ngaaj euh, goo xam ne ni ay trafic jëw de boola euh, lu mu tollu ci ñetti milliards ci suñuy koppar mu ngi ci yéen kaay gii di les écoles du lay yéen i bi di libération yéen kaay gii di libération dafa xëyee dellu soiti maître El Hadj Mamadou Ndiaye mi ne dañ ko arrêté maître El Hadj ak Mamadou Ndiaye nag ngir ñu ko xamul maire Thiaroye Gare la boo ko tamit ci ñi nga xam ñooy défendre kii di Khalifa Sall Khalifa Ababacar Sall mm-hmm. teg nañ ko loxo nag gannaaw bañ ko tuumalee loxoom dafa laale ci ab njuuj-njaaj eh, ci ay boo mu toll ci ñetti milliards ci francs CFA nangoog euh, leneen ci xibaar ci réew mi quotidien yéen kaay gii di réew mi dafa xëyee dellu soiti Ousmane Sonko ak ko jëlee tenc ko kaso eh, tas partem ay naata ngoom yi jëlee daal leen tëj te tëj leen ci Euh, candidature mu ko dañu wax ne ne mëntu la bokk ci élection yi li ñëw euh, yéenekaay gi ne neexul ba neexul Ousmane Sonko fu mu toll nii mu ngi ci tapis bi noonu la ko yéenekaay gi di di l'observateur xëyee dellu euh, Direct News yéenekaay gi Direct News dafa xëyee dellu soir ci grève bi nga xam ne Ousmane Sonko ak ñi ñoom ñu ngi koy def jamono ji la bëgg daal mooy ñu génne leen ci kaso bi ñu leen denc tax yéen gi xëy samp bëgg a xam ndax loolu yoon la woo xam ne mënees na def réussir na ko ci moom moo di Pape Alé nu ni la ko yéen gi eh, direct direct news xëyee xëyee dalal docteur Babacar Niang mi njiital suma assistance di laaj ak tontu gi dox ci diggante mag suñu naata ngooy ma ngi artu la nga xam ne mën a jural moom moom la Ousmane a jëlee mm-hmm. euh, ci décision bi mu jël kon daal du lekk ak naan te nee nag lépp lu ko ci daal ne jàpp ne mooy responsable noonu la ko yéen kaay gi di yor yor xëy fësale euh, waaw bu dee yéen i kaay gi mm-hmm. euh, sax seetal nañ leen man euh, sax euh, code électoral waaye waxtaan wi mooy seen ndàmpaay yi nga xam lu ñu a fay tax yéen i kaay gi xëy samplaaj bëgg a xam ndax a xañ yi waa xam na ci xalaatam mu ngi ci yéen i kaay gi di Sud Quotidien yéen i kaay geneen critique yéen i kaay critique dafa xëy dellu soit ci Khalifa Sall mi samp dëndam wax ne euh, gi ne ndax Khalifa Sall loolu muy yóot mën a ko euh, noonu la ko yéenekaay gii di critique xëy fasal Abdoulaye yéenekaay bi di Source dafa xëy dalal euh, Jean Baptiste Diouf di candidat à la candidature bu parti Euh, nee na dafa samp ndëndam lam ci jub rek mooy sauver parti euh, wax na nag ci taxawaayu benno benno benno benno boo ko yaakaar euh, wax na tamit bu yàlla defee mu jotee ci bopp réew mi fa nga xam ne foofu la bëgg a jëmale Sénégal mi ngi ci yéenekaay gii di Source A moom dafa xëyee dellu soit ci Amadou Ba mi ñu ne mooy def Yaakaar Le kon loolu la xëyee tey jii yéenekaay bi di las ci xëtam yéenekaay gii di las Abdoulaye dafa xëyee dellu soit ci décision bi nga xam ne waa CEDEAO jël nañ ko wax ne Euh, dañu yebal ay takk der ngir ñuy dem euh, inst nga ngir dem nangu nguur ga ci loxol takk der ya mu ne delluwaat ko président euh, ci loxol président ba mu newoon di basum mu nekk nag loo xam ne nii moom la yéen kaay gii di laas xëye tey ji Abdoulaye yéen kaay bi di la soleil lam ñu jukkil yéen kaay gii di soleil dafa xëyee dalal général Moussa Salaw Barmou Algérie ak Libye Euh, laaj na ko moom nag mu ngi indi ay équation jàpp ne lu jëm nag ci décision boobu nga xam ne état bi jël na ko wala waa CEDEAO jël nañ ko wax ne ne dañuy yóbbu ay takk su ko def daal jël nguur ga ci loxo mu ne euh, bu ñu ko jàppee lu yomb noonu la ko yéen kaay gi di la soloy xëyee Fassal Abdoulaye yéen kaay bi di suñu lamb lañ koy jeexale yéen kaay gi euh, bi nga xam ne CNG jël na ko wax ne combat Ama Baldé ak Gris Bordeaux daañu ko amal ni ki benn fan ci weeru octobre li ko waral nag moo di waa Fass dañu bindoon ab bataaxal di sàkku si ñoom ngir combat boobu la ñu daal di koy toxal euh, ba ba jëmmi jamono waaye waaye CNG gis nañu euh, bataaxal bi lu ñu ñutu nañ ko mhm. waaye gis nañ daal euh, combat boobu lee duñ ko randal daañ ko fa yéene bëree ni ki benn fan ci weeru octobre mu ngi ci yéen kaay gii di suñu lamb ma ngoog fës na ci suñu lamb Seydina Omar Ba ñu ngi lay jaajëfal am mbégte lool dalal la ci baatu askan abonné leen ci suñu seen YouTube ngir jot ne ay xibaar ci réew mi